baatin waaye itam ci wàllu fal nit ba tax na euh, dama ko fee dalaloon naa ah, ak quelques jours des élections mu ne ma ku allah kulaal euh, euh, yi day jël réew mi mm. te itam vaar bi yoon la ma dalalaat ko ñu waxtaan ci ay itam ci wàllu wërsëg ci laay yi ba tey parce que itam ku gis jomaay fay nii mu génne ci kaso bi rek yàlla def ko teel ko def président mm. nga xam ne ñàkkul wërsëg parce que réew mi itam soxla nañu ku ko yor amaale mm. wërsëg parce que dégg naa nguur ci sa wërsëg la réew mi di euh, di amaale wërsëg bu baax a baax bu baax ndax euh, Bamba wërsëg doomu aadama mooy doxal lépp mm. jaam bi su amee wërsëg léppam day ubbeeku di nga dégg ñu ne kii kat daa takk soxna si soxna si daa am wërsëg wërsëgu soxna si moom si lay dox mm-hmm. nga gis ne nit mii dina nekk si entreprise bi ndekk baay fal ma ñu fal directeur si entreprise bi moo yëkkatiwaat entreprise bi taalaat ko mu jug dem kon ku si nekk ak wërsëgam ba si doom ji nga xam ne day gën a jamono sax amaana sax day indaale wërsëgam moo tax ñu naan daa indaale wërsëgam kon ku nekk ak ay dem ba mu yàgg day topp réew réew mi day naat lool neex lool lépp di taw feex macha allah waa diaspora bi mën a ñibbisi tamit il est temps. Mhm. alors euh, euh, waa diaspora bi ñibbisi cest à xalaat nga yow réew mi naat ba dootuñu soxla ti tukki. tey loolu jommaay mën na ko ak Sonko. bu baax a baax baax mi ngi ci seen biddew. mu ngi ci seen biddew te biddew yu leer nañ la ñu am biddew nguur dëgg dëgg moom la ñu am te nguur dëgg dëgg dëgg war na mën a tax réew neex réew naat réew tawféexe xaalis bi di circulé waat ñëpp amaat jàmm amaat tawféexe incha allah ku nekk it yoroon tamit sa som mën koo génnewaat réew mi di circulé waat normal di dox réew mi daa war a doxaat bamba ku si nekk gisaat si boppam. macha allah alors réew mi dafa war a doxaat ku nekk gisaat ci euh, boppam mu mel ni euh, fi mu nekk nii nag euh, sëriñ bi laaj naa la ko léegi les gens en tout cas on m'interpelle ci diggante Ousmane Sonko ak Diomaye waaye sëriñ bi nee na lu mu ci man di doon dina ko seet ba gis ko. liñ ci gisagul rek mooy ànd bu neex la àndu mhm. salaam la parce que Ousmane Sonko moo ko waxal boppam. ne mhm. jomaay mi politique du ñu boole. déedéet. Mhm. ndax euh, wax jooju moom ñun mën nañ koo dëggalagum si li nga xam ne wanagum nañ ñu ko tamit. nee naa la lëndëm lëndëm heure bu taxawee rek sorti dina amaat dinañ la wax ne leen camp yi wala camp yi si côté jomaay wala si côté Ousmane Sonko kat war mu ngi commencé di taxaw incha rab rabbi dara du leen seen lëndëm si kàttanu yàlla ni ñu ko doon toppee di si def ñaan di si def ay sarax di si def leneen ngir falu buur am ba yàlla def jàmm tey jii kat la ñu bëggoon ah yàlla ak dogalam mu nangul ñu sunu ñaan nangul ko keneen ko dul ñun noonu it lañ koy toppaate ba heure bu war waree amit kenn du du doon kumpa si kenn mu si baakaaru wala mu si wax naka su noonu ñun de lépp lu ñu leen di tegal si taabul day wér te day leer incha mais sëriñ bi tam mhm. gis nga kër yenn saa nit di ci dugg Mhm. nga ne ko da nga war def sarax nangam. pour mhm. dugg ci kër gi. Mhm. yenn saa yi nit jënd oto nga ne ko danga nga war a def sarax nangam bala ngaa war oto bi. pala itam balaa nga faa dem jomaay balaa moo tàmbali am na ay sarax yu mu war a génne. waaw boo bokk na si ñun de si biir bi ñuy def ñun. di dëxëñu di wër sunuy mbir di tëdd guddi ñu ñu koy wan wala ñu téye sunuy perte di dóor sambron di ñu wan yu bëri. Euh, bokk na si dañ doon def avant après avant après bi nax soo ko déggee mooy li koy taxa falu ñun dañ ko doon boole dëxañ ko si sunu liggéey ak su demee ba nga xam ne falu na it la nga xam ne dina ko gungewaan mu dem kon ñaar yi lañ doon boole waale di ko profité waale si biir ñaanam ak saraxam incha allah kooku moom man jot naa si dugg man ba pare man. Abdou Khadre directeur moi je vois beaucoup de woo leen waalo juuf ana waalo juuf kuy Waly Diouf ah lu nit ñaa ngi koy laaj rek <laughs> ñëpp a ngi laaj waali ah je vois de commentaires donc ñu may laaj Wally euh, ci émission yi euh, man na xaw ma Wally ah personnellement euh, xaw ma Wally man personnellement xaj na ñoom Abdou Khadir waa kër gi xam ngeen Wally waa ñëpp a ngi réclamé waal yi internet yi xaw ma lu xew alors euh, Baye Fall dañuy on a en tout cas euh, c'était juste une parenthèse histoire ñu euh, waxaale itam ci lenn loo xamante ni bi Baye Fall bëgg naa ñu taxaw ci bu baax a baax a baax parce que suñu borom daf la may ci lu bari bokk na ci wàllum papier diaspora bi ñépp dañu la ci wóolu dañu la ci doy la parce que nee nañ ñi nga jot a jëflanteel mmh. loolu tax na nga jóge fii yow dem ba Amérique mmh. bi nga demee da nga indaale ay dossiers yoo xamante ni bi tey jëlee lépp sotti na Baye Fall fan ngay jaar wàllu këyit wàllum këyit dañ koy jaar ci alquran ci ñaan gi yàlla doon wax mm-hmm. di ko jaaree ci yéen yi nga xam ne ci garab kese laa koy jaaree muy sungu fa graine ñu liggéey ko dëxëñ ko def ko ni ñu koy defee jox la nga sangoo sa borom yombal soo demaatee ci alquran ba léegi yàlla mu ngi wax wa yanqalibu ilaa ahlihi masruran ki nga xam ne dafa dem bëgg këyit bëgg ñibbi ci këyit te ko lool bokk na si ñi nga xam ne dañoo nekk si diaspora bi wa yanqalibu ila ahlihi masruran moom mooy il retournera réjoui auprès de sa famille am na lu ma siy liggéey loo xam ne su ma la ko joxee nga sangoo ko si kàttanu yàlla kayit goo mënta lijjanti Europe dina yomb moo xam ñii naan ma damay wut permis moo xam ñi naan ma working permis laa bëgg moo xam ñi naan ma passeport wala kayit gu ma indi wala nangam def naa fi nangami at mënumaa ñëw ki nga xam ne dafa nekk fii bëgg a dem su ma sabi la yasrahu rexlaati chita wa dayfi euh, nax nu wax si wàllum tukki am na lu ñu siy liggéey loo xam ne lu am solo lay doon wax dëgg neex yàlla wàllum kayit ñeewu ma si man mi ndef bi yàlla bind ndax dama yor secret kayit téye ko képp koo xam ne ñaanal naa la si jox la nga sangoo ko si lim bi ma lay wax si kàttanu yàlla kayit goo mënta déposé kayit goo mënta lijjanti incha allah dina sotti donte kayit gi bi nga ko déposé demande bi dañ koo jël teg ko si taatu valise ba wala si taatu dossier yi sax allah kulli al directeur ba wala ka war a génne la ko koy génneeloo sax du ko xam ko tey ah incha allah dinañ koy jëlloo ba mu xiyaas kayit ga du ko sax xam su boobaa ndax ñaan ga ngay sangoo lay doon sangat bi day yàgg wala sangat bi du yàgg sangatu ubbeeku yi lu si gën a bari sept jours lay def wala quatorze jours mu jàpp yaa waxaabu mooy le donateur yàlla jox la li ngay sàkku incha allah rabbi hmm. mais baatu yaa waxaabu boobu kon est baaxul di wérdu waaye yaa waxaabu moom bëri na lu muy def bàmba euh, waxaabu waxaab dafa dafa dafa garaaw dafa bëri secret yu si nekk si wàllum ubbeeku wàllum fàttu ak yu mel incha allah ba nga xam ne képp koo xam ne da nga ko jël di ko liggéey sax sambaram dala siy def dala siy defal tawfeex defal la si jàmm defal la si lu kawe njorto bayre bu am doole la macha allah turu yàlla yi dafa bëri loo xam ne dañ siy dox bëri na turu yàlla bu si nekk am na si lu muy dox am na garab gu muy jàpp wala sëy dañ ko war a seet laataa nga takk nit ki parce que wax nga léegi wàllu wërsëg. nga ne mhm. nit ki lu mu dugg moo ci indaale wërsëgam. Mhm. sëy dañ koy seet laataa nga siy dugg am na koo xam ne bi mu duggee si benn néegu sëy boo xam ne seen i wërsëg àndul tabiyaan yi àndul wala rawxaan yi àndul kooku sëy boobu moo ko dëpp ba faw mu doonoon milliardaire dem ba yelwaani fekk na amaana seeni rawxaan ñoo àndul seeni biddiw ànduñ kon sëy dañ koy seet ba pare ba nga see dugg nit dugg na si jaare fa ñàkk ba faw nit dugg na si jaare fa tàkk ba faw kon lu si lu mu si mënta doon da nga ko war a seet kon bala nga see dugg ànd naam àndul baax naam baaxul wala yu nu mel sëy dañ koy seet li si xaar lay doon wala nit day woote léegi nga seetal ko léegi bamba soo wootee léegi su la neexee doo coupé sa kaddu kese suñ ko déggee doy nañu sëkk suñ ne la jàkk sa xar kanam doy nañu sëkk sa loxo soo ko fotowe yoon nañu doy nañu sëkk suñ tegee nga jox sa tur sa turu ndey ñu jël léegi jat li ñuy jat wax léegi wallahi alazim ñu wax ñu sa lépp wax ñu sa sarax génneel ñu lépp seet li ma la wax à chaque fois listixaar su ma tëddee guddi bëgg laa seetal ñu wan ñu lépp lépp loo xam ne dëxëñ na say mbir soox nañ tan boo xam ne ñoo ngi ko teg suñu neexee fépp fu ñu mënta nekk la fay circuler la fay dox la fay yëngu lépp ñu dee ñu ko si sunu nopp incha allah kon seet moom dañuy wax naan ñeewuñ seen mbindeef bi yàlla bind te ku ko weddi nañu woo nga xool ba xam ndax seet bi nu muy mel alors mi ngoogu euh, jërëjëfat yi Baye Fall boo xam ci kàttanu yàlla fàtte ni moom laa dalal tey a waxtaane lu bëree bëree bëri bëri euh, waxtaan bii di gën di euh, dem may gën a waxtaan ak moom ci mbiri Ousmane Sonko ak euh, Diomaye la sortie de Diomaye seetaan nga ko tey naka nga ko gisee en tant que donc sortie bi mu njëkk a def mm-hmm. alxamdulillah rek alhamdulilah rafetlu ko bu baax a baax gis nañ kàddu yi teewlu nañ ko déglu nañ ko tamit macha allah li si gën a am solo rek guddi yi ñu toll mooy takkaat ndigli bu baax a baax nekkaat ci waar yu bu baax a baax wax jeex na jëf moo des nelaw jeex na jëf moo des àdduna ñoo bokk yaakaar la àdduna ñoo booloo jox la kàddu àdduna ñoo booloo wóolu la ngalawaay rek lenn la takkaat tubéy ji bu baax a gën a takkaat jajj yi bu baax a baax te xam ne guddi ñu tollu liggéey rek moo fi des insha allah projet yi ca kaw ca rek loolu rek lañ yow yow yow mi doon ñaan pour jomaay sa jaan wàcc na fi mu nekk nii <laughs> dootoo dootoo wala da ngay continuer di génne ay sarax boo ko gisee waaw alhamdulilah heure bu ñu ko gisee mën nañ koo génnee te heure bu ñu amee plateau yi dinañ leeral bu baax a baax tamit la ñu gis ak ban point tamit la si war a taxawee insha allah gàllankoor yi jeex na gàllankoor yi mën nañu wax ne jeex na ndax euh, li ñu si doon ñaan di ñaan sambrom dindi gàllankoor yi ak fal ko mu toog ak euh, sambrom jox li àdduna yëpp booloo votel ko sànnil ko carte jox ko li sambrom defal ko tawféex loolu rek lañ doon ñaan si sarax si ñaan si kurus si sondele si nangam ya sambrom taal na mbir mi kon sant yàlla kon bu baax a baax rek en sëriñ yu bari ci àdduna bi ñu ngi leen di vaar rek wax dëgg sama baay faal mi lay bokk ci euh, ndax it nag wax dëgg yàlla li taxoon ma am fitu invité ko tey parce que fii kuñ fiy baar rek <laughs> duñ la fi dalal euh, li tax ma invité ko tey mooy liñ fi waxoon yépp keroog dafa osé ma lancé ko défi ne ko wax ma ndax jomaay day jël réew mi mu ne ma carrément jomaay day jël réew waaye ci kaw sarax bi ma war a génnee ma génne ko ci la dem ba Saalum donc génnee boobu la sarax Saalum googu itam am na leneen lu fa nekk sëriñ bi muy wàllu kaaraange yenn saa yi nga aar nit ba dara du mën a dal ci kaw Bamba bokk na si kilifa yu mag yi ëpp lu may sang Saalum laa koy defee dañ may topp fekk ma Saalum. Mm-hmm. ma am jour yoo xam ne lu si ëpp su ma demee weekend Saalum fa lañ may fekk ma jox leen fa seen sangat incha allah suñu demee dañuy falu. Mm-hmm. Bamba sangat la yoo xam ne incha allah soo ñu fa fekkee lenn li à base de plante la ñu dugg ci àll bi. Mm-hmm. jël li ñuy jël ci garab ga waxtu wañ koy jël ak nañ koy xasee ak lañ koy jëndee lii meewu bëy lii nàkk dugub lii nangam ak nangam ak nangam ba ci lu ñuy wut. xorondom euh, sump bu sax si xorondom siddéem bu sax si xorondom ak yooyu yëpp ñu jël ko ngeer gu sax si xorondom ñu jënd ko ni ñu koy jëndee maa ngi seeg sangat goo xam ne si garab yi ma la limal ngeer gu sax si xorondom sump bu sax si xorondom ak siddéem bu sax si xorondom incha allahu rabbi am na lu ñu koy booleel képp kuñ ko sangoo san taal say mbir si kàttanu yàlla ak mbaaxam wàllum samp daal wàllum sangat ñeew ma si mbindeef bi yàlla bind xam maam laa yor nee naa la ay gone la ñu waaye xam cosaan la ñu yor maam la ñu yor ñun waaw samp mooy lan. samp mooy lépp mooy dañ lay samp aar la si lépp ba sa borom fegal la bépp lor ñu samp la si wàllum wërsëg ba mbindeef bi yàlla bind du yàq sa wërsëg wala ba lay gàllankoor wala muy gor say tànk wala muy téye sa wërsëg. su ma juumul samp mooy ni ngay demee ci euh, médecin ne ko defal ma bilan général ci sama yaram samp mooy dañu lay aar ci cat. la ci làmmeñ àll ci lépp loo xamante ne bi war na dal ci sa kaw ba pare itam ubbi sa wërsëg loolu mooy samp loolu mooy samp bamba maa ngi benn sangat goo xam lumu lumu lañ ko tuddee ok lu lu mu mooy tuutu daal exemple lu mu si sa yaram rek sangat gi benn sangat goo xam ne dañ see dëxëñ ay mbir yu bëri yoo xam ne day taxawee protection yaa xam si wàllum rab la faru rab la liggéey la cat la seytaane la ma dëxëñ ko si benn xaatim bu mag dagg ko lépp loo xam ne tënk na si sa jëmm suñ la ko joxee nga xooj saafara bi di si guux ñetti guux di si sangu wallahi maa ngi koy waat si leeruk alquran su matee nombre de jours yi ñu lay wax tooke bu mu mënta fekk si sa yaram si benn sangat googee day day ubbeeku goo xam ne suñ la ko joxee alal ak yokkuteeg yëkkati koog gàllankoor ak société bu ubbeekoog place bu dox ak bayra ba ak nangam ak lépp day nekk ci sangat googu ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bamba benn sunguf sama ko cofee ñett cof jox la cofal la ci ndox nga xeeb ko wallahi mën na lakk sa mën na mën na mën na mën na taal say mbir ba nga xam ne yow danga naan sax déedéet ñetti cofu sunguf fii mënul lii mhm. garab la dañ ko wuti si heure bañ ko war a wutee dugg biir Saalum mu jaral ñu Bamba ba léegi may wax ak yow xam-xam daf maa jaral te damay dugg si àll bi ñaay sol samay tubayu blouson di yéeg si kaw garab yi di aj tobb yi di ajj tàgg yi heure bi ma ko war a wut ak na ma ko war a wutee nee naa la xam-xam jaral na ma lu nekk su garab nekkoon ba inde damay dem wuti ko fa ngir ajooy jaam te bëgg naa lépp lu ma waay jox mu lew ma ma lekk ko maag sama njaboot mu doon loo xam ne daf maa lew trop d'accord wàllu noob moom ñu koy wax ci réew mi bari na mais ñi ko man bariwul euh, xiirtal nit ki ci sa bopp mu bëgg la mbëggeel goo xam ne amul amul sago moo xam sa borom kër la moo xam sa soxna la moo xam nit ki nga xamante ne bi vraiment euh, sa njaatige la da liggéey ak moom wala ki nga bëgg mu jox la bopp. alaw kuli al nopp mënta ñàkk bamba bokk na si sa soxna da ngay ñàkk dëgëral bokk na ci sa borom kër dangay ngay ñàkk dëgëral ndax seytaan daa gaaw te li yàq daa bari nob ñëwuñ si mbindeef bi yàlla bind comme ni ma la koy waxee yàlla bi muy wax si alquran wa wa alxaytu alayka mahabbata minni mahabba googu bëggante moo taxoon si wa alxaytu kese maa ngi siy liggéey différent nob bii danga koy takk def si xorom takk ko si sa yaram mën a ñàpp si sa yaram maa ngi benn nob goo xam ne fan yi laa ko indi muy nob gu doy waar goo xam ne dama ko wuti woon Saalum benn mbir la boo xam ne danaan ñàpp ci kaw garab gi dañuy yéeg ci kaw garab gi waxtu wa ñuy tari li ñuy tari dindi ko suñ ko dindee bàmba loolu poudre bu tuuti lay doon ma wal ko jigéen gu njagamaar jigéenu njagamaar moo ma koy dëbbal ku mustaxam góor su ma ci cofee lu toll nii jox la ñeme naa la see laaj ay millions nga jël ko baxal sa sunguf bu ndaw bi ma la jox nga sangoo ko ni mu tooyee noonu noonu ngay demee nga jaxasoog sa borom kër wala nga jaxasoog sa soxna wallaahi wal kitaabi bàmba kole seere bu ama am doole bu toll noonu mosuma koo gis ci àdduna maa ngi benn graisse boo xam ne maa ngi ko siy joxe kole seere la ñàpp rek lay def si kàttanu yàlla laalal niinaay bi taq nga utiliser ko ak sa borom kër wala sa soxna bul xuloo bul xeex demal nga toog soo si gis résultat alal jooma jox ñëwal ma delloo la ko